alhamdulilah rabi alalamin walsalatu walsalaamu ala ashraf almursalin muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ñu ngi sant sunu borom di julli di salmal ci ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ñaan sunu borom bu dëkkee jot ci wàllum xéwal ci kaw yonente bu rafet saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain mbokk yi tey de ku xool jamono ak ni mu mel bàkkaar ba muy tuddee njaaloo dafa wasaaroo lool ci kaw ba mel ni ci ñenn ñi sax da di loo xam ne lislaam daf koo tereetu njaaloo mooy góoru jàmbur ànd ak jigéen bi mu takkul ci sëy wala jigéenu jàmbur ànd ak góor bu ko takkul ci sëy bàkkaar la boo xam ne ci yi gën a mag te gën a mën a yàqal doomu aadama fii ci àddina la bopp àllaaxira moom taxul du wax borom bi subhanahu mi ngi arku ci ay aay yu bari bu tedd bi bokk na ca yooye ci suuratul Isra te aaya fanweer ak ñaar suñu borom ne wala taqrabu zina bu leen jege njaalo borom xam-xam ne dañuy wax ni lépp loo xam ni danger ba ca nekk ka koy tëkkoo dañu bu leen ko jege su dee suñu yëfi àddina yi moom dañ koy sori kenn du ko jege waaye borom bi xam danger bi nekk ci njaalo kat waxul bu leen ko def waaye dañ bu leen ko jege ndax nag innahu kaana faaxisatan wa sabila ñaaw teef bu bon la tey mujjantal bu yées lay jural borom su borom di tagg jaamam yi nga xam ni ñoo ko nangul mu tuddeen ay ibadu rahman ci téeréem bu tedd ba nga xam ne ay tur rek waaye ay melokaan la suñu borom bokk na ca la leen taggee mooy ñoom ne duñ bokkaale yàlla duñu rey bakkan waaye wala yazluun duñu jàll mu teg ci ne wa man yafal dalik bàkkaar bii yàlla ko ko def tey yalqa ataaman dina dajeeg musiba yu rëy rëy rëy yoo xam si ma dafa sunu borom yudaaf lahu al adab bu ko sunu borom yee mbugal day ful mbugal ne yowal qiyaama di sëy wa yaxludu day sax fii da tawarata ko maala nekk ku doy nekk ku ñu toroxal illa man taab des ku tuub wa amana mu gëm yàlla wa amila amalan saalihan di jëf jëf yu baax yoo xam ne mën naa remplacer lam jëkkoon a def ci ay ñaaw mbokk yi bu ñu seetloo musiba yu rëy yi nekk ci njaaloo tax na charia da cee teg façon mbugal mu metti xam ngeen ne mbokk yi charia ni mu amee yërmande su fekkee dafa jël benn waay mu ne nañ ko fudd liggam téeméeri yar yoo xam ne dóor yi rek deem xaj na tam charia ni mu bàyyi sukkar su fekkee dañu bàkkaar bi ku ko def buñ koy duma nan woo mbooloo mi nan ko teewee te lislaam di digg ay tiyaaba wéy ci ku suturaal sa mbokkum julit te tey moom sharia mooy xaawi sutura fii ndax moom mooy jëkk xaawi sutura yi boppam la muy wane moom koy bàkkaar bi dawatu te jamono yonente bi ne alayhi salaatu wasalaam nit bu musaana njaaro bu musul am jëkkër wala amul soxna dañ koy daw génnee yar loolu ngeen gis suuratu nuur الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة njaalokat bu góor ak njaalokat bu jigéen bokk na ci li ñu leen di yaree mooy woote ca mbooloo ma nit ñi fekkee ko ñu xaawee seen sutura yëg ni jiw kër moo ubbi dëpp jàmbur njaalo te jaarul te yoon takkut ñu toroxal ko wala yashhad adaabahuma taifatun min al muminin suñu borom mu ne nañ leen toroxal ba dëkk bi yëpp yëg ni jiw moo def ñaaw ci sàngam xaawi sutura góor ci doon digle sutura su ko defee la ngay wane mooy jiw kat li mu def bañ def ñaareel mooy su fekkee nit dafa mosoon a am borom kër wala mu mos a am soxna kooku moom dund araam ci moom kooku waratu la dund dañ ko war a jàmba bu baax dëgg la borom xam-xam yi juyoo nañ ci dëppoo nañ ci ni moom ku am jëkkër dañ lay jàmba nga dee juyoo gi kay ñu ngi am ci xadis boobu ma jàng sànq te ñëw ci sax muslim ndax dañuy boole taw ga ak jàmb ga ñenn ci borom xam-xam yi dañ dañ koy taw téeméeri yar ba noppi doog koy sànni ay xeer ba mu dee ñeneen ñi ne déedéet dañ koy tànn ay xeer ba mu loolu mooy li a dëgër ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca jamonoom am na ay jigéen ak ay góor yi te doon mu dóor leen am na ñu am jëkkër daf leen a tànn a tànn ay xeer dañu faatu amul benn riwaay boo xam bu wér la bu wér ni kat dañ leen a dóor doon leen di euh, tànn ay xeer bokk na ci musiba yi nekk ci njaalo mbokk mooy nit ki su fekkee dafa njaalo li ñuy tuddee ngëm yàlla suñu borom da koy nekk ci moom day dañ ci xadisa abi hurayra yonte yàlla bi nee na ida nana al abdu xaraja minhu l iman nit ki saa bu njaaroo li ñuy tuddee ngëm yàlla ci sa xol suñu borom da koy nekk mu yëkkatiku ciim la kabbul la comme aw yéer gis nga nit ki mu fekkee tuubul wala tuubu waaya waaya la tuub rek fa lay jaare ñàkk ngëm yàlla ba faaw saye boobu continuer ñëw di jàkk julli saye boobu woor jotee mu woor saye boobu muy xarale waaye léegi mu amatul gëm yàlla xam naa bu tuubee nag delluwaat ci boromam récc nga xam ne récc ko yegg na ci bu démb doon tey def lii mu def nee na ngëm yàlla gi day wàcc si waat moo tax Abu Hurayra ba mu solo xadis ba noppi def ci ak ni su fekkee nit ki tuub na kat mbir mi day ñëw daal di duggaat ci biir xolam waaye bu fekkee tuubam it noonu lay gën a yëkkati bu di gën a yëkkati rek nee na bu yëkkati bu yàggee kat dootul mën a yëkkati nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na weer mu doon jiite wala muuru jant bokk na ca lan doon sa xutbaam mooy yéen xeetu Muhammad yi yëg leen ñi kat amul ku gën a téer sunu borom te bokk na ci sunu borom mooy bëggul jaamam bu di njaaloo ak jaam bu jigéen maanaam ku góor di njaaloo ku jigéen wala ku jigéen di njaaloo ku góor te ku seetlu kat mbokk yi da nga xam ne loolu kat wax dëgg yàlla jëf ju salte la yoo xam ne ku salte rek ko mën a def ndax ku am mañam rus am looy jox am ngëm yàlla ah am yëg-yëg ci sa borom da nga rus moos di seen jigéenu jàmbur joo sa ko waaye ji da nga rus moos góor jàmbur am na benn jigéen loolu la daan wax ju am solo moo tax rubba xikmatin xaraja min gayri xakim boo nee njaala mu ne ak cëb loolu dafa salté loolu sax teey nam xel jigéen ji xoole ba góor bu ko fekkoon di ko tiim mu ne loolu di teey nam xel kooku de wax na dëgg da tax du borom xam-xam la kon ñaanoo def na ci a bàkkaar bu salté la boo xam ni kenn du ko mën lu dul ku salté comme a jëf yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na it sama xeet yéen muhaajiru ni juróomi mbir a ngi nii yoo xam ne ay musiba la maa ngi muslu ci yàlla bu mu leen fi fekk yéen saxaaba yi ne ñu ne ko ay ko nag man ba mu tey lim bokk na ci mooy musiba yii ñuy tuddee ñaalo ak fekkeloo ñàkk jom ak ñàkk kerke jii feeñ tey ci dëkk bi xeet wu am wu ne suñu borom dana wàcc ay xeeti jàngoro yoo xam ni boo yeewoon ñu faat ñu njëkk ne dañuy laaj yii jàngoro xeeti jàngoro yi lan la ñoom xamuñu ko loola daanaka ci daal di jar gën a fës rek nag waaye am na yeneen borom xam-xam yi gëstu ci wàllu këbb dañuy wax ne am na yeneen feebar yu dul sida yoo xam ni yooyu ñuy gëstu ci médecine xam nañ ko am na yoo xam ne mi ngi dal aadama ci biiram am na yoo xam ne mi ngi dal doomu aadama ci suufam am yoo xam ne mi ngi dal doomu aadama tam xelam te yëpp benn bu am na yu tur nit ñi xam nañ ko kon loolu benn ci gën a siiw rek ñu ca yokk waaye nag mbir la moo xam ne borom bi moo koy wàcc mu nekk wala boo xam ni mi ngi tege ci kaw mooykat yàlla yi waaye nag nit ki mën naa bañ a mooy wala mu dal ko ndax fitna laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa suñu borom ni moytu leen fitna wattaqu fitna fitna kat bu yegsee du yam ca bopp ña nga xam ne ñoom ñoo ko def rek yonente bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi mën naa toog ba mu yàgg mu nekk li saxaaba yi man de bii damaa toog ba mu yàgg ñaari malaaka dikkal ma ne ma jubal di dem mu ne ma jub ànd ak ñoom léegi ñu romb ab barab boo xam ne barab la bu bu doy waar ma laaj fii fan la nga ne ma continuer rek dem nee na ñu rombaat baax bu day waar yëpp leen ci nekk am na ko tax a jóg gàttal tax ma tënkee ko noonu bu ma yàgg ñu romb benn baax dafa mel ni laa li féete kaw dafa ubbeeku comme laa ubbeeku la féete suuf yaawee ko lool yéen ma yéen ay nit yoo xam ne ñi nga ci yu ko yaa nga mel ni bu la ko kenn nekk xet gi tey génnee moom doomu aadama mënu koo jël di ko noppi maa ngi yëgal na ngeen ma demal rek waaye bañ may fekk li ma romb yëpp bi ma laajee waaw li ma romboon ci li mel ni naa sàkk-sàkk di génn ci ñoom xeet bu naqare bi ñooñu ñan la mu ni malaaka bi daal ni ko ñooñu de moo nekkoon daalokat yi góor ñaak jigéen ña ñoom la suñu borom futti ba ñu fet dugal leen ci biir foofee mel ni naa sàkk-sàkk yi di génn mu ni sàkk-sàkk yi di génnee ci seen suuf yi yi ba lay sàkkee di génn léegi bi mu laajee ñu daal di koy wax ni ko ñii kat ñoom ñooy njaalookat xeet wi ñu góor ñi ak jigéen ñi moo tax benn borom xam-xam mu ne dëgg la kay du seeni suuf seeni awra ndax comme seeni awra lañ doon jëfandikoo njaalo ga mooy yàlla ga su bànneek ba jugee ñu dem kon suñu borom bu leen fayee loolu day nekk ci saar ñu tàmbal ñaareel bi moom mooy mu ne comme bànneex kat da koy féttéerloo nit ki léeg-léeg nga delluwaat ko mu ne moo tax ñoom dañuy tiit di bëgg a génn sa barab booba ñu nekk waaye saa bu ñu dee ba defee dara ko lu dul jël rek dana leen ba mu xar ci biir ñu dàllaat seen bugal ma wala yaa billah kon mbokk yi ñaaro di tey wasaaroo na dem na ba daanaka asbaxat al maaruf dem na ba nekk sax loo xam si daanaka lu dagal la ndax tey boo déglu média yi nga déglu doomu aadama yi ci mbedd yi ci hôpital yi soo dem rek tey wallahi amul génn guddi nag am na nit yoo am na nit yoo xam ne amul génn guddi lu dul danañ gaaw loolu am na fi Dakar gii te lii may wax nag du ak koom wala ak yokk déedéet eh, yàlla def na maanaam jamono ji dañoo toll ci jamono boo xam ni doomu aadama dañoo dañoo àgg ci féppéerlu ak muy yàlla ak mbonte koo xam ne ni ñu ko doon nëbbee léegi nëbbeetuñ ko noonu xam ngeen ni moom xeet yi ñuy dégg tey ci xeeti mbalante ak xeeti ñaawteef ak xeeti mooy yàlla ba nit ñi di ko fësal ba nit ñi may génn ci crée di wax ni man lii damay jaay sama bopp nga wax mu man fekk ne yëpp yi bokkatu lu tax bokkul parce que gone ndaw yi ñoom la góor ñi gën a soxla léegi mbir mi dem ba yegg ci boo tegloo tey façon bi ñuy tabaxee jiro léegi nit ñi dañ cee génn génn saay saay lu ngeen mooy dañuy tabax bureau ba noppi tabaxaale ci biir bureau bi ak néeg néeg ba tabax mooy lan mooy ngir nit bi kat mu mën di njaaloo moom te kenn du ko yëg tey boo demee ci secteur yi nga xam ne ay nit ci wàllu liggéey bokk na ci charte yi ñu jëlee nit nit ki mooy bu ñu waxtaanee yow defal la entretien ba jàpp ni war nañu laa jël gis na nga nekk jigéen joo xam ne xëy na mat na jigéen dañ lay proposé njaaloo ah gis na ko mi ngi nii mbooloo bari ñoo ko soxla soo bëggee nga njaaloo ñu jox la bopp bi soo ko bëggul nga bàyyi sama doom jël am am ngor loola dee moo leen ko gënal dañuy bàyyi dem waaye tey ñu bari tey ci buntu boobu la ñuy jaar ba am liggéey am na yoo xam ne secteur ba secteur ba mu nekk ñoo ko fay def te seen i employé sax dañ koy yëpp waaye ngeen di nekk pour lu lëbb xam ngeen ne mooy yàlla gi su demee ba nit mën a maa ngi dem jàkka ja fekk soral lay teen bi dañu ray ko fa te lii may wax nii amatu fi yàlla ñu ko def léegi génn tàggu ko waa maa ngi dem jàkk génn nekk te soral la doon teen bi muy dem bay seeti waa ji di yéeg ci kaw fa ndaw sa nekk nekk ndaw saa ngay am ku muy joteel ba ñuy dàqante bi muy wàcc gardien yi di di wër waa ji dëgg ni góor gi ñëw la ci lañ bojj paaka rek nekk sa waaje moom rek ci dafa daw yoonam mu jaaree ba demal laaxee yéesal yóbbu sa morom ñuy wër di wër di wër ba kenn xamul ko dañu ne woon kat jàkka ja la tàggoo woon nekk dafa tàggoo jàkka ja dem ko loolu ci jamono ji di loolu di am na góor bu nekk fële ca ndaw moom laay tàggoo dem jàkka ja ubbi jàkka ji nodd wéeru sa côté ba di xaar dindi jëm mu génne ci lu moo noppi wéeru ci côté bi di di di di di def ay zikram balaa nit ñi julli fekk na moom muy dina borom subhanahu wa taala xool leen ñaari baatu yi ñu wutee kii bu àggee da am na lu wax borom subhanahu wa taala demoon naa ci jor ak faral safara tey maa nopp ak mbir yi am ci nopp yëpp waaye jàpp naa ni kële bi bu yeggee dana dana ñàkk lu baax ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ci ay xeetu muy yàlla yoo xam ne tey bala dafa dem ba ci biir kër yi nit dafay am soxla ba noppi sax di yàlla jamono yi passé si dangay yéen a ngi dégg ci rajo bi waa joo xam ni dafa tàgg bu soxnaam damay dem mission ndekete ci la jëm ci benn hôtel bu nekk bu nekk ci Dakar ndaw sama mel ni am na toog suñuy génn waa ji tàggoo xëy dem ba ci guddi ga coro si jël si ndaw si ndekk ndaw si mooy jabaram ndekk ñoo bokk benn hôtel bu buñ taw fa lañ fanaan moom fanaan ak corom waa ji fanaan ak coro sam nekkal moom bi ñu fanaanee ba fajal jot kenn ku ci nekk woon doon sorge tam dem di sangu ji ñu daje ci xuraan xool xool xoolu jiit mooy yàlla nga xam ne mbir la yoo xam ne am la ay réalité am ñu ay nit di ko nekk li la fii ba mbir mi yegg na ba ci même bu xaaba yi ngeen di gis muy def dem na ba yegg dafa jaar ci buntu njaamu am na benn waay boo xam ne moom njabarkat bi li mu ko doon defal mooy may ko xaalis mi ngi nii benn jigéen ngay jël ñetti góor kenn ku ci nekk na sëyeeg moom ba yëg ni sonn na mu doog a bàyyi nga doog a jël manet bi di koy aar lii mi ngi am ci bu fekkoon da ngay dégg ñu koy ni rek yow li ngay laaj mooy lii ban réew lay am fekk lii mi ngi am ci réew mi ñuy dund dund maanaam réew mi li ñuy wax ne quatre vingt quinze pour cent léegi sax leen ëpp na ko ay ay jullit lañ réew ñi nga ne dinañ naan ay jiw jiw ci lañ tëdd ngeen amul benn njëriñ xam nga li am njëriñ mooy doomu aadama yi dund seen diine ndax mag yi nag mag Israayila beneen koo mën ci dem ay jaamu yàlla yu baax ñoo ko tudd yu sell waaye mbonte moom fu am mbonte nga fa yoonu ñëwee te yoonu ci kon muy yàlla gi yegg na fii mbokk yi moo tax sunu al-fasaadu fi al-barri wal-bahri bimaa kasabat aydi an-naas sunu borom subhaanahu wa taala def na kat mooy yàlla gii di njaalo mbokk yi bokk na ci musiba yi nga ko yàlla dina la xañ ci ay xeeti xéewal ak yëg-yëg loo xam am te xoolal mooy yàlla gi di yàlla moom rab yi nga xam ni ay rab lañ ay rab lañ nga xam ne sharia togg leen dara ñoom sax dañ ko xañ so dana say Buxaari amee bi ni may mun dafa ñëw fekk yonent bi bi jàngale li ñu tuddee rajm mooy ku ñaaral dañ koy jam ba mu am nañ mooy dafa tëpp yuuxu mu tiit mu ne yonent sa sala mu jiñ ci mu ne yonent bi man maa teg sama bët balaa may tuuf maa dem ko àll ba seen benn golo bu ndaw golo gi dem bàyyi ba am golo bu mag bu tëdd mu ñëw ba sama nopp nopp bi daal di koy korat gi jub ànd ak moom ñu dem ca gannaaw montagne ñu daal koofa mu ne golo yi yëpp ko biñ ko yëgee dañoo wootante dàq leen ba dab leen biñ leen dabee mu ne maa ngi gis kenn nettaliwu wala yi jël ay xeer yi sànni comme ni yonent doon def saxaaba ba jaara mu ne man ñii bokk naa ci ñi sànni xeer su fekkee mbindeef yooyu nga xam ne ay rab la seen kaw bi indi ñoom mooy yàlla gii bañ nañ ko bay jëfe àtte ci àtte sharia te ñoom loolu tax nekk du leen war te kooku ana doomu aadama yi nga xam ne ñoom la suñu borom foofu def yemul ci loolu waaye ñaama kat mbokk yi lépp loo xam ne mooy xeeti mbonte dajan ci këllatul waa li ñu tuddee ko ñaareel bi nit ki dootul amati lu muy jox nit ki dootul amati kersa nit ki dootul mën a dëgg te leen na ngi loo xam ku ko yàlla nag ko rek gis nga bàkkaar bi di mooy yàlla ndaal ku ko matale même boo tuubee ba pare même bu la nangulee tuub bi yaa ngi am lu ñu taxal ba tey parce loo ñàkk bàkkaar la boo xam ne li ko wutale yeneen bàkkaar dafa am benn xalaala muy tax muy dox ci diggante nit ki ak yàlla loolu nit ki daf ko yëpp mu mën a xool gis nga boo ñaaloon war a kon benn yoon loolu yàlla daf ko mu tuubee nga dëgguwaat da ngay ba léegi rek benn kat kat bu def saxal boo xamut lu mu doon booy boo ngay góorgóorlu ba samp la kër di jigéen te mu soo ñaaloo wallaay yëgal ne yow jafe nga fii ci àdduna jafe nga la ko waral mooy am na capka ci ngëm yàlla boo xam ne yàlla du ko jox lu dul ñooñee beneen bi ci des moom mooy yàlla dafay dindi ndoxum kersa ci sa xar ni secret la bu ne sa digganteeg la ko an jox suñu borom da koy yëg comme ni ngay yëkkee ngëm ci kaw nit ne dafa jaawo xam ngeen ni am njaaloo kat kenn dootu ci wóolu ba a xam ne dañuy wax ni njaalo kat ay soldaar yi askaar yeneen yu lay àndal ba am lu mu bëgg ndax li ci bëggee njaalo dana fen ndax dana def ay technique ba àgg ca kam bëgg a yegg dana fen dana wor dana sàmm ñàkk ñàkk sàmm kóllëre ba nit ki ni njaalo kat te nga xam luy njaalo yow dootoo ko wóolati ci sa njaboot dootoo ko wóolati ci sa alal te loolu bokk na ci xukuma yi nga xam ni borom bi subhanahu wa taala daf nga xam ni ñoom ñooy mooy kat yàlla yi nga xam ñoom ñooy njaalo beneen bi ci des mooy ngëm yàlla gi ñu wax naan nit ki suñu borom da koy rëcc nit ki su fekkee dafa ñaawal kat suñu borom day rëcc li nga xamante ni mooy ngëmam bu ko yàlla baaxewul tuuti mën naa ba ci déglu beneen bi ci des mooy da ngay ko salte na léegi maanaam si groupe ñu salte nga leen ngay dim suñu borom ñu naan alxabitaatu lilxabitina walxabituuna lilxabitaat wattayibaatu littayibina wattayibuuna littayibaat si suñu borom traité njaalo ak ak ay garab ba noppi suñu borom dañu ñu teg ñi dañoo mën a ànd ak ñu teg ña waaye ñu sibuñu te sànqñi ñoom ñu sibuñu te sànq ñuy àndal moo tax azzaaniyatu laa yankixuha illa zaan aw mushrik njaalokat dañuy tere islam day tere góor takk ko njaalokat bu bu bu góor islam day tere jigéen nangu mu takk ko sunu borom mu ni njaalokat bu góor takk julit bu jigéen waaye njaalokat bu bu bu jigéen tamit julit bu góor waru koo mën takk wa xurrima dalika ala almuminin lool dafa xaram ci ñi nga xamante ni ñooy ñi gëm yàlla ñu di ko nangu ndax loolu dafa wóoru koo xam ni mën naa am yàlla bu doy mu a jox boppam geneen góor bu dul soxnaam wala mu jox boppam geneen jigéen bu dul borom këram luñ ko waxal ak rek ci lu bon ko war a war na war naa mën a ci yi nga xamante moom la dig ci gaa yi tuub ngir mu nangul leen seen tur mooy amana day tuub ah wa amila amalan saaliha muy jëf jëf yu baax mooy nit ki kat jëf na ay jëf yoo xam ne wax dëgg yàlla ku ko xool da nga xam ne kii réccu na lam doon def te bu démb démb démb démb dellu si woon maanaam du ko def fekk na nag jamono bi nga xam ne mooy yàlla bu mel ni jii ñu tudd tey mi ngi wasaaroo da nga gis ay nit lu am ay fan yoo xam ne sàmm seen ngor ak seen diine waaye takk seen seen kubay takk seen sumb ba mu dëgër ba yàlla dagalal leen lam dagalal ci joom loola moo leen gënal li ñu mën a am ànd ak loolu nag yaa ngi gis ay mooy yàlla yu bëri ndax sànq nee naa la fitna ji mën naa bañ a njaalo feebar yi saxal nga xam ne ne góor gi mën a génn bàyyi soxnaam ci a génn dem njaalo ak ay yeneen yeneen jigéen kooku mën na faa jëlee jàngoro dugal ko ci biir kër gi na soo benn xarit boo xam ni ci tànn lay liggéey am na secteur boo xam ne su ma ko tuddoon tey ñu bàyyi tamit ko xamul duñ ko dégg fa la doon liggéey dafa dem sama seet leneen bokk na ci li ma nekk ni mu ni jamono jam koy nekk lam daan am ci mu saab moo ëpp salaire loolu loolu ay jigéen yoo xam ne seet ñii la ma Dakar ay jigéen ñoo xam ni seeni borom kër dañoo tukki ñuy tàggal ba njaaloo di tàggal ba am bi tey dañuy ñëw loo laaj mën nañ la koo fay pour nga yàqale mu ne moom li ma ciy xëy am lu muy dugal ci portal yàlla baare ko dimbale ko mu xam diine yàlla yàlla dëgëral yàlla yàlla bari ay moroom lii moo tax mu génn sa liggéey boobu moo tax nga xam ni kon yoo nga yàlla ñu ba tey maa ngi bëccëg bi mu ñëwee woon ci man lan san jël pour su boo xam ne yaa la tey am lu baax nga pare pour bàyyi ko ngir ni lii yàlla da koo yónnoon kon jamono bi ngay ñu bon ñi ba nga jàpp ni réew yëpp won nañ fekk na am na ay benn benn yoo xamante ni baax nañ comme ni ko suñu borom di waxee laa yastawi alxabiisu wa tayyib walaw aajabaka kasratul xabiis lu baax ak lu bon moom duñ mas a yem donte mbol gi dem na nag ba pare ba yéem ñu ba duñu ne li nga xamante ni moom mooy nit ñi am na ay nit yoo xamante ni tey ci wut wutum liggéey lii bu ñu leen ko gaaralee ñoom waaye am na ñoo xamante ni xëy na ñoom xawee ko seen àggale te ñoom luñ bëgg ci ñoom dañ koy am ci xeetu mooy yàlla bu mel noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci karab bi muy jaayante jigéen ñi xoolal saxaaba ya ñoom ci seen jamono ñu naan boobu tuub xoolal hen nga xam ni mooy soxna si defoon ay naka ba ñu rey Hamza bi yonent bi ne jigéen ñi kaay leen ma jaayante yéen laa tushrika billahi shay'an bu leen bokkaale yàlla wala tasriqna bu leen njaalo wala wala taxas na bu leen sàcc wala tasdina bu leen njaaloo nit ñi bu leen njaaloo ndax bu tëb mu yuuxu mu ne yonent bi awa tasdina xorra bor mu leen a njaaloo sa xol mi ngi doog a tuub jàngagul dara ci lislaam mi ngi doog a tuub tey waaye pour wala ne ñoom demoon nañ ba mbir yi mbir yi ak ñàkk sérieux da cee nekk ak ñàkk civilisé da cee nekk ak mbaru xalaat da cee nekk boo xam ne ñun ñii doog a tuub gëm nañ loolu jaaduwul mu ne ko awa tasdina xorra moom ndox dara ñu leen a njaaloo ak kay kooku bu yegg woon tey dana fekk seen gaal yi jot du amatul sax may njaalo sax waaye gor yi rek ñoom ñooy njaalo yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci li mu doon jàjjee saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain mooy li ñu mooy ko njaalo képp laay lu ñu man loola moo taxoon bàkkaar gi ku ko mën a nekk ci jamono yonent bi saa sallam yëg na siiwal la bu dee ku sangewul woon danañ ko caw waaye bu ko doon ko sange dañ koy jam ay xeer ba mu faatu loolu am na ci ay jamono yan dafa ay nit yoo xamante ni def nañ ko ànd ak loolu nit ki seytaane ci boppam jumtukaay yi nga xam ne moo la ko yonent bi bàyyi alayhi salatu wasalam mu tiitlu loolu xam ngeen yonent bi la bàyyi ma sama gannaaw fitna ji gën a rëy fitna jigéen wala si mun ñoo ko gën a mel wala xawee ko gën a mel wala ñàkk kees ko gën a mel ndax nit ñi dem nañ ba léegi wuññee ko gën xawee ko ak solo xam ne say awra ci biir lay nekk léegi loolu nit ñi lan ko def waaye nekkul sax te xam ngeen jigéen ñi ko yàlla bind dafa ñu tuddee jaabi yi mooy loo xam ne comme at yi dafay xëcc di xëcc góor ko andi lépp bunt bii la tey bu ñu demee ba a yegg ne la bàyyi yegg na ci doomam yaay yegg na ci nu mu tuddati bàyyi yegg na ci yaay yegg ay nit yoo ay ñaari am la day information ñuy waxaat rek waaye ay mbir la yoo xam ne léeg-léeg day am ci barab yoo xam man mooy doon ba nit mën a yore ñeent ci ay soxna ba pare di yegg ci doom ju mu jur ko di ko ëmbal ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ñu ngi am solo bi mooy dafa am yoo xam ni ak daay daay la donte nag am na yoo xam ni feebar la dafa am nit yoo xam ne ñoo feebar feebaru bànneex dafa domine ci seen xol ba bu ñu génn ñoom gis ak mooy yàlla ñoom dootuñu mën a téye ci seen bopp waaye am na yow saa bu ma koy dee parce que dañuy indi ab bàkkaar la ak mooy yàlla waaye maa ngi xam lay doon yéen ci loolu waaye xoolal seen seen télévision bi am na ay chaîne yoo xam ne saraaxatan dañuy wane ay góor ak ay jigéen di sëy futteeku ba tey xale yi ko seetaan internet moom xadis wala xaram moom daanaka nit bu jugoon ak mbar sakkoo lu mu bëgg ci internet dana ko ci fekk te lii ñu nekkee tey jii boo seetloo daanaka doon ci li ñoo koy jëfandikoo kon bunt bi mbokk yi bunt la bu ràcc moom benn saxaaba ñëw na ci yéen sallallahu alayhi wa sallam ni ko yéen ci man day dama bëgg nga jox ma ndigal ma njaaloo saxaaba yi tiit naan naa ci kaw mu ni bàyyi leen ko mu ñëw mu ne ko bëgg ngaa njaaloo sa yaay mu ne ko aawuzu billahi loolu loolu lépp dama ko yem ci mu ne ko moo ne kenn bëgg ko defal yaayam bi mu ne ko bëgg ngaa def benn bopp sa mu ne ko yem ci bàyyi ngeen ko ñi kenn ko mu ne ko moo ne kenn bëgg ko defal tàntaan bi mu ne di ko limal ku ko limal rek mu na yàlla la ci loolu yonent bi yëkkati loxoom ko ci dënd bi ko gëm waaye daal di koy sori mooy yàlla waaye jooju dem nañ ba fuñ daa waxtaanee ngir mooy yàlla te bëgg bëgg a topp yi ndax nangu ñaanu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ànd ak nag ñàkk seenee gis yàlla da koy fayee ci kaw suuf li borom xam-xam naan kamaate li ko daal gis nga képp ku sàggan ba dem njaaloo soxna jàmbur wala nga njaaloo rakki jàmbur yëgal ne yàlla dana la ko fay dana njaaloo sa sa soxna wala dana njaaloo ba rek koy daa affaire yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafay nekk ci jamono ji yàgg ci sa banu Israël benn waay dafa génn dem ca marché ba di jaay benn jigéen ñëw di jënd mu yor loxo bi mu ngi nikk loxo bi bëgg gën a ci dugal ci gàttin bi xelam fàttali ko yàlla subhanahu wa taala mu tiit daal di bàyyi loolu bi mu tëjee gàttin bi pour ñëw këram pour tuub si mu ñëw fekk soxnaam di toog di jooy di buntu kër mu ne ko looy jooy mu ne ko waa ji ñu doon rombal ndox par par suba mooy ñëw li muy dugg sax xëpp dafa jékki-jékki rek coupé ñëw ni nit ki sama wax wala tiir rek mu bàyyi waat ma dem waa ji daal di moom bi moom ñëw mu ne ah kon de dama coupé rek bàyyi moo tax it ñëw coupé rek bàyyi gëm naa ni su ma dolli woon la ma defoon kii dana doon dana dem loolu moo demal ni dari su daal moo tax benn borom xam-xam bi wax ni ah yow mi nga xam yaa ngi xocc xormay gaa yu baax yi te topp li nga xam mooy yoon yu bon mu ngi yëgal yow kat sérieux yow doo ko mérité ñu teral waaye na nga yëg ni su jaarloo ci kër jàmbur nga joxe sa ñaari junni yëgal ni ci sa njaboot lañ koy fayee koo te su boobaa ñeenti ci kin lañ koy joxe ndax njaalo kat bor la bu ñuy fayantoo te saa boo ko leblee rek buñ koy fayee te sa biir kër lañ koy fayantoo te am na ñoo xam ne nag ba léegi yàlla baax na li occasion njaalo wallahi buñ ko amee danañ ko am na mel na mbokk mu baax boo xam ne doon ab jigéen la doon jàngal ndaw si futteeku benn gis ba mel na jigéen ñi mel ak borom këram sàngu te ni sama bopp day nekk jàngale kat di ñëw fekk ko ci ba mu ne mu yegsi mu xëcc ci bunt bi tëj bëgg njaaloo moom yàlla may ko xikma du doy ni mu ni nit loo ko xob mi ngi futteeku mu ànd ak moom ba kër ga ak ni mu mu ne ko yàlla naa bu taagam génn borom xam-xam ne yéen ci waa joo xam lu mel nii da koo ay bëgg jaay la doon jaay mu dugg ci buntu kër gi ndaw si ni ko yegsil ndaw si yegseeg moom ba ci biir néeg bi tëj buntu bi ko waral ne nit ki ragal yàlla ba léegi nii mu tëj buntu bi bëgg a jaaroo ko mu ne ko boo jaarawul ak man danaa yuuxu waa koñ bi ni leen yee ñoom ñëpp yow yaa doon jaaroo léegi ñaari léegi ci kanam yoo xam ne ah jaabu maa moom amul mel na pare mu ne ko wala jege mu ne ko waaw li suñu borom naan wa yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan bi mu ne ko ana wala mu ne ko war a waajee mu ne ko mayee ma dugg si wala wi mu ci biir wala wi bi mu duggee xam naa yàlla moo lay xelal rek mu naa ji leen sa ci mu sa ba ay loxom fees si yaram tuuru di génn bi mu génnee ndaw si xool ko rek ndax ko mu génn si bis bi mu la gis nga nit ki ma def bëgg mu ci moo ko yóbbee borom xam-xam dañuy wax ne noonu la ko suñu borom fayee ba ginnaaw gi fu mu la mën a romb parfois da lay ree te du laal loolu suñu borom nag wa yattaqillah ba la suñu borom yajal lahu maxrajan suñu borom utul la solution kon donc njaalo bàkkaar la bu bon la nañ ci yeewu yéegi suñuy njaboot yéegi suñuy doom te mu am benn yoon wala maratan fi l umri nañu yëpp ñu ubbil nañu suñu bopp buntu ñàkk comme ni ko Ibn Qayyim di waxee xéewal yi daan ñëw di rëkkati ci sa kaw yàlla dana ko téye yu daan rëkkati ci sa kaw njaboot yàlla dana ko téye subhanahu wa taala ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq ci dunya jullit ñi ci seen diine delloo ci bu rafet yal na yàlla subhanahu wa taala dimbali képp koo xamante ni moom mooy dimbali ji waaye yal na yàlla toroxal képp koo xamante ni moom moo bëgg a toroxal li nga xamante ni mooy diineem ji wala muy toroxal li nga xamante ni ñoo cay yëngu ñu ngi ñaan borom subhanahu wa taala yàlla dellu si julli ci seen diine maratan jamila ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا انصرنا وانصرنا على القوم الكافرين آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا عليك توكلنا وإليك أنبنا إليك المصير هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين